dafa doon atelier boo boo xamante ni euh, COSAED muy benn euh, kuréel bu mag bu nekk fii ci euh, fukk ak ñeent région yu Dakar donc fu nekk ci Sénégal daal ñu ngi foofu et collectif bi fu nekk dafa am pôle donc tey ñu ngi ci pôlu région bu Dakar. Euh, man le euh, coordinateur régional bi euh mangi Augustin Carvalho et tay formation bi euh, dañ ko yóbbu ci lepp lo xamanteni dañu bëgg former jox li nga ni ay ay kat lañu xam top top yi nek ci mbedd bi dañu top xalé nek ci kër yi dañu donc top ci jafé jafé pour que euh, agent yoyou mun euh, dimbali ñooñu euh, dimbali il faut que agent ñu donc motax tay euh, ñu ngi fi waye ci formation ak renforcement de capacité bo xamanteni dañ ko jagleel ci xalé yi nga xamanteni dañuy dund euh, lu ñu nane abus sexuel ak euh, exploitation sexuelle donc xalé yoyu nga xamanteni dañ ñu len euh, euh amna ci ñoo xamanteni ne dañ len violer euh amna ñoo xam ñu ngi len di tédé bëss mu nekk amna na xamanteni ñu ngi dund lu metti en tout cas ñu mëna former ñoñu comme ça ñom aussi bu ñu tasee ak xale yooyu wala bu ñu amee lu dëgg lu démé ci lolu ñu mun a indi aussi seen ay euh, soutien euh, ndimbal ci ñit ñooñu nga xamante ni dañu euh, nekk ay victimes.